tudd Serigne Omar Deme ci ban taxawaay ngay jëlee taxawaay message bi lan euh, message bi euh, sëñ Abdoulaye dafa am lu mu wax nit bu defee lu baax nañ ko ne jërëjëf damaa toog Ousseynou Diouf woo ma mu ne ma damaa bëgg nga ñëw sama kër ma ñëw këram toog ñuy waxtaan mu génne xaalis. wan ma ay xar wala 3 millions mu ne lii dama koo bugg a jàppale ay nit ñoo xam ne vraiment dañ maa yaakaar ma ne loolu rafet la man nag du ma seede ci nit lu ma xamul ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko loolu de baax na wax dëgg yàlla ndax boo ma yëgul woon dooma wax naa naa ñëw def lii naa ñëw ñu ànd ñu def lii bu ñu àndee loolu doxalee ko ni ñu ko war a doxalee lépp ci bisu tabaski bi moo waral moo tax sama jotaay. ma mën a ñëw fekke lii daal ak soxna su baax si muy Mati Mati Mati madame Dieng mii ku baax la aussi loolu moo taxoon euh, moo indi woon daal euh, sama mbir fii yàlla def it mu soxla woote mu ne damaa bëggoon it nga teew moo tax it ma teew. aduna message bi mooy def lu baax ñu wax ko ndax ku def lu baax dañ lay wax jëf liggéey na lu baax dañ naan jëf te ñu xam ne moo ngi jàppale président de la république bu baax a baax baax. jàppale président la république aussi mooy nit ñi nañu waxtaan ànd ci dëgg mouvement yi nga gis dafa nekk mouvement yu baax mouvement yoo xam ne mun nañoo jàppale président à Thiès man nag euh, gis nga sëñ Babacar dëgg bu jotee rek dama koy wax mu jeex et puis Malick Guèye toog mu ne ma dem damaa bugg nga jóg ma ne ko ah lu xew mu ne ma jóg leen ñu wax ñu dox ñu jàppale président ma ne ko ah mu ne ma waaw yàlla def ma ne ko kon amul benn problème. te Malick euh, jege yow sëñ Babacar jege sa population lu rafet la nit day jege population xam lu leen naqari nga koy faj mais tant que boo ñëwee weekend doo jege sa population xasuma kenn nag doo xam lu leen naqari soo ne da ngay jàppale président de la république des na président de la république da dem tàllal loxo nit ñu baax ñi nga xam ne ñoo ngi cees bu leen amee dina am lu mu bëgg Thiès ndax tey cees bu newoon ci loxo yële am na lu bari wàññi nañ ko ci daal. président da nga bëgg wax ñii mu dénk parti bi fii si Thiès euh, du ñu wax gaa yi. non gaa yi lañu. Hmm. nit ñu baax lañu. liggéey bi dafa des bopp. waaw cest à dafa am loo xam ne dañuy jël ci moom model xam nga docteur Ndiaye tey yàlla moo tax may wax boo demee yaa ngi koy gis boo ñëwee mu waxtaan ak yow boo xoolee lu daw yaram dama la koy nettali fii Mamadou Dieng dafa wàcc liggéey ba mu li may wax ngeen def ko ñu toog bennoo bokk yaakaar yëpp daje te Mamadou Dieng ak ñoom ñoo àndoon. bi ñu àndee ñu toog kenn fàttaliwu ko bu ñu toogee ci réunion bi moo toog ñu ne nañ ko defar ñaan ay dog moom docteur mu wax ko te bi Mamadou Dieng wàccee liggéey ba tey ñeen fukki guddi juróom-ñett fan njiitu baayam bi moom Ousseynou Diouf dañ cee taxaw dañ ciy dem guddi dañ ciy débéti Ousseynou keroog bi muy dem palais xam nga lu ma la wax dafa dem dafa dem jël nitu Mamadou Dieng yóbbaale kon ñaar ñii mënoo ne ñoom fàtte nañu Mamadou jee mooy docteur ak Ousseynou. tey taxawaay bi lan la war a doon. taxawaay bi daal mooy nañ jàppalante liggéeyal président la bi di gërëm nag Omar Youm aussi Omar yum Omar Youm lépp lu ñu mën yàlla ak mooma réeroowul ak ñun guddi réeroowul ak ñun bëccëg te ci région bi la dëkk ci département bi. nit ko déedéet jaxasewul moom day jàppale président rek ca lay yem moom luy yokk président ca lay yokk su dee nag noonu lay demee ku dugg ñu naan day jaxase kon ñu xam ne président du falu dañu waxante dëgg de. bu dee rek tey bii bu bu Babacar Ndaw duggee fee ñu ne la ah Babacar Ndaw dugg bu mu fi dugg fii la war a yem barke Rasulaay président na génn pale bi loolu du dëgg na leen jëlee ci loolu loolu du dëgg nañ leen jëlee ci loolu loolu ay fen la. ñu ngi wax référendum ak euh, au conseil bi ñu romb yëpp président ak euh, coalition am na nañu ndam ci département bi euh, biir Thiès ci département bi aussi la bokk mais. ci biir commune bi jàpp nañ ne liggéeyu président ba léegi néew na fi doole. non tey lan nga yaakaar ne responsable yi moo war a doon seen taxawaay pour que biir Thiès li fi bi ñoom ñu mën koo jëli. lépp juboo la rek suñ wee ñu am lu ñu bëgg ma wax la dara es bi tey ñoo ngi tàllal Mamadou Njig loxo na ñëw daf ma woo mu ne ma kaay nga gis ma dem gis muy financer ay jigéen di jàppale ay ASC e. Mamadou Njig bu Itacom. nit ku baax la ñoo ngi koy tàllal loxo na ko président tàllal loxo mu jàppale ko ci es bi nit ku baax la yàlla rek a tax may wax bi ma ko waxee keroog ñoom Mati dafa ne ñoom ñëpp dinaa leen seeti te dañ xam ne it mouvement la yor te président la République lay jàppale fu mu dem loolu lay wax Mamadou Ngingue bu Itocom damaa bugg ngeen bindi ko ngeen mais li ma la wax. nekk benn bi daal suñu nekkul benn kon jarul ñuy kii président dañuy lekk xaalisam rek bu Ablaye Wade li Ablaye Wade amoon mu am ko dañ koy nax nañu nekk benn. man su yeboo bu ñu xëyee suba bu ñuy reer ñu ma woo buñ ma defal dara yàlla moo ma man yàllaa ma yor su ma xëyee man rusuma jël sama mbattu mee toog kër ñëw kër mati ne mati sarax ma aw ma dépensé ndax man taalibe laa ba ñu ma lu may nekk te ñu xooti ñu xooli porteur de voix yi nga xam ne ñoo nekk Thiès di jege nit ñi Ousseynou Diouf du fanaan du fanaan Thiès du fanaan Dakar chaque weekend mu ñëw gis nga ku bëgg ab dëkk doo fanaan Dakar weekend da ngay ñëw toog xool lu nit ñi bëgg nga def ko docteur a ngi ne bu wàccee 6 heures fee lay toog ba ngoon ku ñëw wax ak moom xam nga lu ma la balaa ngaa di ngeen ci dëkk bi ñu naan non nit bu nekkee personnalité war naa kii du foo tollu feeñ waaye boo feeñul nu marki nu Macky Sall di gagné boo feeñ. président mën na euh, am ndam biir Thiès am na mun na comme commune am na ndax am na ndaw soo xam ne aussi dama la ko fàtte wax da ngeen def ci moom xel bu mu jëwee aussi jàmm la indi mooy ndey tikke. bi mu ñëwee daf ma ne Omar Mati dinaa ko boot dinaa ko rogganti dinaa ko jàppale Mariam Diop si laa ngi ne keroog bu tukulóor yi ñëwee alpulaar yi këram la génn otel bi jox tukulóor yi mu ne toog leen fanaan leen lu mu fa recevoir mën na 300 personnes da koo muñ gis nga man lu may wax ci àdduna lu may wax damay wax lu leer dama koo tënk fu wér wa ma shahidna illa bima alimna du ma seede ci nit lu ma xamul du ma neexal. dañoo xëcc ci dañoo xëcc ci li fi ne man du ma tudd tur na bu ma tuddee tur kee rek tooñ naa ko añ naa bàkkaar mais billaay wallaay bu ñu dajaloo nekk benn barke sala seen xol ñu raxas ko ba mu set wecc billaay xejuñ ci ndax fi mu nekk lu amoon doole yëpp commune bi fii ouest xoolal fii ma jox la benn exemple may ma tuuti après mu tëj da ngay xool ouest bi fii tey jii am nañ fi dara grâce ñoom docteur Mati Ousseynou Diouf liggéey nañ ci lu am solo ak ñoom Marème Diop wallahi wal kitaab gàcce ngaalaama dañuy liggéey ba école HLM bii ren dañ ko cee boole xam nga foofu wàññeeku na ñun dañoon dem élection Idrissa ñëw raafal lépp ñëpp jommi léegi suñu problème xam nga fan la problème bi xam nga fan la est bi Mamadou Ñing nañu wax ak moom am na lu mu am nord bi ñu xool mouvement Mamadou Dieng bi nelaw ñu dem yee ko nañ dem yee ñu jël ay mbàjju mburi bàjju yi wax ak ñoom dañ waxante dëgg moment Momar Dieng bi amul kenn ku koy seeti. président na gagné bu wax lii ma wax su ko su ko gëmee. barke Salat Fatey day gagné Thiès man maa la wax lii man mais su ko deful aw ma ca xam-xam. yow kan Omar Deme maa ko wax de aw ma lu may ragal nag. xam nga lu ma la aw ma lu may ragal. mais li ma la wax lu leer nañu.